doon benn say ngir barrer la route à Ousmane Sonko et sa liste damay fàttaliku publication Ousmane Sonko bi 2019 bi ñuy door a bàyyi Khalifa Ababacar Sall waaw yaa ngi koy génne fan yi bind ndeysaan ci Facebook bi naan je salue sa dignité te di ko ñaanal yàlla mu mu wér ci trois longues années de de détention yi may fàttaliku ndeysaan élection daaw ya ba ñu toogee ca taabal ba ndeysaan mm-hmm. Khalifa Sall toog fii Déthié toog fii xam nga ñu ànd seen ànd bu rafet wi ndeysaan Haj Mansour mbay ca dëgg-dëgg bu dee nettali histoire am na lu mu téye waaye lenn de dama leen ko waxoon ci élection présidentielle yi ne leen Ousmane Sonko bu leen téye dina leen dóor ba ngeen di bëgg a waaye bii dinañ leen wulli ba ngeen nooy xam nga lu tax du ay question de parti politique ay question de calcul moo ciy am li am mooy est-ce xam nga ne sénégalais jikko ji mu gën a bon mooy jikko warkat baaxul traître baaxul. ku fi waree. ñu doon waree ngay laaj ñu doogoon ak moom ci taabal bi démb te taxaw tey jàkkaar jàmmarloog moom tey ñooñu ñooy warkat yi te ñoom dañu yaakaar ne Ousmane Sonko la ñu amal problème. dañoo juum lan ñu def. waa kaay ma wax la li ñu bëggoon ñu def mooy ñu ànd ak seen ngor. mooy. mooy seen discours bi woon démb ak bërki démb ñu continuer di ko tenir tey mooy ne ñoom benn adversaire la ñu am mooy ñi ñu jàpp ne ñoo pillé dëkk bi ñoo yàq dëkk bi. ñoo xañ sénégalais yi li nga xamante ne moom mooy ay sunu ay liberté surtout tous les plans ñoom aujourd'hui ñoo réduire l'expression de la politique à sa plus simple plus simple expression ñoom ñoo jox ñoo wàccee gëdd ak valeur politique ba dëgg-dëgg nit ñi wóolootuñ ko li la Ngoné Saliou doon wax naan politique da daan wax ba pare mu mel na dox ba fekkee accident ba rek ñii naan ko dee nag deewuñu mu boole ñëpp suul mm-hmm. ne waxee waxi politique la ak waxi politicien la loolu ñooñu ñii c'est-à-dire ces gens-là moi quand je les vois aujourd'hui réunis non sincèrement plus rien ne me choque dans ce pays ah oui ah oui et je vais te dire les Sénégalais s'ils vont sanctionner ce n'est pas par rapport ak bien que Ousmane Sonko wax naa la fii keroog ne la nit ñi moom la ñuy topp bien que mais bu loolu weesoo tu sais y a des gens dans ce pays qui ne sont pas de Pastef Pape Ousmane Cissé mhm. mais bu ñuy voté jëkkoo la ñuy voté mais c'est quoi ce comportement bi sunu ay maam ñun amul te yaruñu ñu ci taarixu waraate bi mooy ne taxawal aujourd'hui pour des intérêts personnels parce que qu'aucun sénégalais ne pense que ñii li ñuy def ni c'est pour l'intérêt des sénégalais ban intérêt sénégalais. oui bu Pastef jëlee yoonam ñoom amatuñu benn possibilité pour link ak Pastef. waaye yow war a dem ci ay législatives ñu waa léegi formation politique war a laaj kaay ma wax la li gën a neex kaay ma wax la li gën a neex xanaa sañ nañoo xalaat kat kan la ñuy àndal ngir mu mën ñoo may li ñu bëgg wuy ma kaay ma wax wuy ma kaay ma wax la nag bu may ah. ma yeewal mi gën a lu mm-hmm. fajar dama la bëgg wax lu tuuti te bëriwul ànd ak Pastef du force mm. <laughs> ku mu neex nga bañ a ànd ak Pastef problème bi du ànd ak Pastef mooy problème bi mm. mm-hmm. Pastef bu ko neexee dama yoonu Maître Moussa Diop dama lu yoonu boppam bien que moom itam am na problème mandataire foog ba xam ndax moom fu mujjee daa plainte wala déet yaa ngi dégg mais je veux dire du loolu mooy problème bi ah. nous ne sommes pas dans un état où il y a que des suiveurs fii y a pas de mouton de panurge je suppose que sénégalais yi boroom xel la dañuy xalaat mooy ne waaw may ma ma ñëw rek may ma ma dikk ah. may ma dikk bu yëngal sama kii bu ma may naan loo Doliprane dama la bëgg wax lu tuuti te bëriwu dama ne la du problème mu ànd ak Pastef mooy problème bi ñoom ils sont libres ñu bañ a ànd ak Pastef mais ils ne sont pas ou ils n'ont pas le droit aussi xeex xëy ñëw taw taxaw ña nga doon xeexal ña taxoon ngay ŋawti ŋawti askan wi ñenn ñi di la faral ñenn ñi xoolaat ou reconsidérer waat seen ay vision politique parce que xam nga la mooy reconsidérer vision politique. Hmm. mooy ne aujourd'hui que tu te dises écoute il y a quelqu'un comme Barthélémy Diaz les gens jugent qu'il n'y pas plus arrogant que lui mais. aujourd'hui parce que aujourd'hui am na nag benn leader boo xamante ne c'est celui moom la le plus plébiscité moom la nit ñi di gën a bëgg nit ñi xoolaat seen reconsidération politique par rapport à un Barthélémy Diaz kii bërki dem mën ne la maay doomu ndeyu Ousmane Sonko xëy tey langax moom xalifa Ababacar Sall war a àtte dëgg dem farak Barthélémy Diaz bàyyi Ousmane Sonko bi mu toogaloon table déglu bu baax li ma lay wax mm-hmm. parti démocratique sénégalais bi ànd ak wàllu askan wi ànd wóolu leen ci élection législative yi passé jox leen doole fal leen ba ñu dellu assemblée nationale am fay siège c'est ce même parti démocratique sénégalais là ñoo war askan wi ànd ak waa APR Benno Bokk Yaakaar biir assemblée nationale pour loo def li ñuy def lu war a mën a tax aujourd'hui report élection pour la première fois on en parle dans notre pays on parle de ces partis politiques là on parle d'un serviteur qui se dit serviteur du peuple absent à plusieurs fois assemblée nationale may ma ma ñëw may ma rek ma ñëw xoolal kaay ma wax la man je ne parle pas sous le coup de l'émotion je te donne des arguments et des faits qui se sont déroulés fii problème bi mooy danoo bëgg ñun sénégalais yi pour notre avenir et pour notre santé d'esprit pour que ñun suñu xel mi ñu mu mu mën a dal ñuy am affaire ak ay nit ñoo xam ne dañuy fàttaliku li nu fi waxoon démb Pape Ousmane dëkk bii du ay caaxaan des gens ont perdu la vie pour un combat et ce combat n'appartient pas à Ousmane Sonko il appartient à tout un peuple on ne veut plus de politique qui pense que mën nañu manipuler à chaque fois que élection ñëw ñu soxla askan wi ñu yàkkaar ne mën nañoo dëpp suñu xel dama ne la ñuy ànd lëkkaloo nii ñoo doon xoosante digg ginnaaw démb ñoo doon xastante te ñoom ñoo àndaat tey où est la cohérence Ousmane Sonko kese moom dong képp tête de liste laa la wax. ñoom ñu àndandoo boole seen i mbaraak yi sax seen i kawas takkante ñu dem ca élection yi mu làpp leen ba ñu nooy maa la ko wax. Oh, aw li barki Mohamed li ma la wax du daj. et c'est le contraire qui va m'étonner dans ce pays là. et là xoolal on ne parle même plus du jugement de six mois du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mm-hmm. te il y ko beaucoup trop d'arguments boo xamante ne ndaanaanu politique bi da ko teg ñi da leen a gasal kàmb balaa ñu caa yegg si wax naa la ni deful daray politique muy caaxaan ci moom toute action que Ousmane Sonko pose am na lu tax mu def ko te balaa ñoo jublu ci élection xamal na askan wi ne leen ñu na ngi dem de sànq Salma xaw ma ngoo ne moo fi doon wax affaire immunité parlementaire loolu ñu koy yëkkati nice cool fine amul problème loolu du problème. mais nañu fexe ñoom ba jéem a am tous ñebbe muy but buti biir assemblée nationale loolu déjà cas la beneen ba ca topp mooy war nañoo layoog sénégalais ci lu ñuy wax tey seen kat du wuute ak seen jëfin loolu itam beneen kaala beneen ba ca topp mooy ay nit ñoo xamante ne bokku leen réalité politique nu ngeen mën a ànd yéen vous na pas la même vision vous ne combattez pas les mêmes choses bokku leen gëm-gëm bokku leen façon gu doxalin. am nañ objectif ñoom. waaw am nañ objectif àndandoo xeex Ousmane Sonko. lii mooy seen objectif du leneen ndax kan dina ci am ndam. li ñu bëgg noonu ndax ah li ma la ko yow déggoo ko. Ah. ndax bi nga waxaat ko. man leen di làppee sax dafa ëpp dina leen làpp ba nu nooy maa la ko wax. man nag Déthié moom ci moom rek moom a ci naqari man joxe xoolal tu sais Salma. Hmm. ak Ngoné man mënoon naa concevoir sax ñu jël kenn pur sax jiitalu def ko tête de joxe j'aurais pu comprendre ça. Hmm. mais en Barthélémy Diaz le fait que dans notre tête ñu naan il est inéligible il est inéligible rek c'est un problème. Hmm. et le conseil constitutionnel va statuer sur ça. loolu moom du débat kon da ngaa ànd ci Abdoulaye Diouf Sarr ci posture am lu mu ne du nangu ranger wu derrière Khalifa Ababacar Sall. waaw Khalifa Ababacar Sall est-ce que politiquement il existe toujours. <laughs> s'il existait il allait avoir le score bi mu am ci élection présidentielle bi passé oui l'on sait que ah ci local yi tamit Abdoulaye Diouf Sarr ak la mu doon sàkku ci Dakar ak euh, mayu ko ko woon te jamono jooju. Euh, APR ñoo nekkoon au pouvoir. mais boobu la ñu waroon xam ne ñoom amatuñu dara kon ci politique. ah kon Diouf Sarr dem ak mu toog ñoo yem. non mais c'est je veux dire si tes résultats d'hier ne sont pas conformes avec tes résultats d'aujourd'hui war nga mën a xam ne yow bu doon baromètre de popularité en fait da nga chuté hmm. te li la tax a chuté contexte boobu tant que jógewu mu noo amaat benn sursaut en en matière de politique c'est tout aussi simple que ça c'est un calcul simple Bougane ne le sait pas mais un plus un égale deux. oui euh, malgré limites yi ñu relever nga xam te ngi koy annoncé ci ñi ñi doon xeexante démb àndaat tey mhm. tous contre